Baby nga xam ne moo gën a métti ñun mooy wàllu santé te saa yu ñu ko saa yu ko taategee rek nañu dugg remplir toutes les informations lépp la ñuy teg dossier lu ñu laaj dañ koy teg si xaalis léegi problème tegu ku paree rek gars yi dañuy tënk affaire yi teg suma am benn suma xarit la suma grand la parce que papa suma papa la doon am mais keroog bi ñu woote fii le monde de la lutte presque ñëpp ñëw ñu maanaam dossier yëpp mais amul suivi li mu dugg demul te lépp lu ñu laaj lépp lu ñu laaj kër taal donc à l'époque monsieur Matar Ba pare woon tey pour am lu mu pour pour pour mën a parrainer devant loolu parce que réglé na ko mais ci la mbir mi di taxawee lii dafa nekk lu sensible parce que li nga wax laa rek am na dafa nekk liggéey boo xam ne en toute sincérité pàcc bi dafa bari parfois bu ñu fekkee loo xam ne intérêt commun la en toute sincérité dañ ko di ci lay moom moo tax lépp luñ teg rek da nekk quelque chose boo xam ne du du du perturbé le monde la nit mu nekk loo xam ne dañ koy dañ koy maanaam dañ koy dañ koy ñàkk dañ koy encadré

ñaan la am na ko bëgg dañuy wax ab naaw ñoom hmm, ab naaw seen njëriñ moom bu ñu defee ñu defee sànni xel ñu defee loo xam ne nag dafa def ci la service xam ne moo ñuy xool dañuy déglu te loolu dafa war a ne njaboot yi njaboot yi làmb ñu ngi koy suivre bu baax baax baax a baax xam nga bu nit bu la yéenee jàmm daf lay yéene yéene ko wér-gu-yaram te gis nañ ne chaque fois ñu ne waaw diw day président moo koy yóbboon ci réewu faju ji mbër mu mbër mu màgget bii day madame la présidente moo koy yóbboon faju ji ak yooyu léegi nañu loolu yëpp nañu ko tënk def ko benn mutuelle de santé ku feebar dem faju te xëy na la nga fay fay du bari wala boog sax nga ñàkk fay mais yeggul foofu ma bëggoon di fàttali ne gratuité aussi amatul fenn maanaam lu may la lépp amatul fenn ñun daañu ci jàpp bu baax dugal ci suñu loxo pour mu jëm kanam maintenant ci gàttal koo xam ne bon je crois que wax na ko ndax dégg nga ko baax parce que mutuelle bi nekkul mbër yi kese nekkul promoteur yi kese axul lu làmb lañ wax maanaam ñi demoon ci président dem CNG maanaam CNG ci la bokk. école école ci la bokk promoteur yi ci lañ bokk manager ci lañ bokk entraîneur ci lañ bokk sage ci lañ bokk ancienne gloire ci lañ bokk mbër yi wax naa ko ba noppi amateur ci lañ bokk communicateur traditionnel ci lañ bokk presse sportive yi ci la bokk batteur yeeg woykat yeeg microcentro yi muy animation ci lañ bokk vraiment ñooñu ñëpp mooy ak loolu mooy ak laamu ci lañ bokk nee nañ nag koo xam ne am nga adhéré nga bu la neexee bu ngaa adhéré sa njaboot say doom ñu bokk ci sa papa mun nga cee boole sa yaay mun nga cee boole donc maanaam bu la ñuy wax ascendant ak descendant ak sa propre famille maanaam say wayu ak say doom ak yow sa bopp mun nga cee bokk maanaam mbir mi dafa yaatu nekkul ne rek Paa la jóg jóg ak su itteel boppam rek waaye njaboot dafa la ci ginnaaw déedéet booy dem bu la neexee yooyu yëpp nga dugal ci adhésion donc loolu mooy li nga xam ne.

merci donc euh, di bu baax nag ñi fi jël kàddu yëpp parce que ñi fi jël kàddu yëpp am naa njort que ne li tax ñu jël kàddu mooy benn pour laaj la ñaar pour defar su ñun ñëpp amee perception boobu ci li ñuy def rek mën naa yomb waaye fàttali leen timit li ñu bëgg a def ay jaamu yàlla ñoo ko nar a def. jaamu yàlla nag lu mu def dina am lu ci baax waaye dina am lu ci baaxul waaye nañu am njort ne même li ci baaxul na baax lañ ci jublu woon mooy tax may profité occasion bi di ci tontu ci sama benn papa bu fi jël kàddu ne ci mutuelle yi ci bari fonctionné wul la am solo mooy ñu xool lu tax yooyu fonctionné wul pour que lii ñuy defar tey nii te bëgg ko tabax nii mu bañ jaar ci yoon boobu pour mu mën a fonctionner parce que dañu faral di naan boroom kër ci këram dañu ne mu am dépense bu mat doyewul matewul pour mu mën a am ceeb bu bi mu bëgg ci këram soo amee dépense bu mat day baax nga am jeeg bu mën a togg waaye bu yéwén timit mën koo joxe mooy lan mooy président Macky Sall su dee tey am na njort ak bëgg-bëgg pour jàppale acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur lutte te yàlla natt ko tamit mu am ay relais des gens yoo xam ne ñoo mën a nekk digganteem ak lutteurs yooyu wala digganteem ak acteurs lutte yooyu li ñu def it day sooxe kese moo tax ma invité kenn ku ne ci yéen déjà mu am njort bu rafet ci li ñuy def nii dina baax parce que loolu force la boo xam ne. dafay motivé waaye soo dooree mbir ak koo ko doorloo ak koo ko doorante dama ne soo commencé mbir euh, dama ne mbir boo góor mbir boo door bu ne baax na ñu ko séq déjà ñu am ci gëm-gëm ne lii ñuy door kat war naa mën a ne te war naa am njariñ kon ñu am ci njort bu rafet que ni lii nii war naa mën a dox am na ñu fi wax ba tudd Moustapha sëñ Moustapha yàlla def na acteur bu am solo la ci wàlluk mutuel te mu ngi ciy def liggéey bu am solo et d'ailleurs activité bii nga xam ne dañ koy def fii bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen invité woon pour mu fekkee benn mu mën a joxe expérience am ñaar aussi mën a déglu su dee am na ay tontu yum ci mën a joxe tamit war koo mën a joxe mais li wóor ba wóor mooy li ñu yëkkati lenn kese la ndigal la boo xam ne président de la République de koo joxe depuis 2015 mutuelle bi yi nga xam ne ñu ngi am fii ci réew mi agence bi ñu ngi ko créé depuis 2015 suñ ko doon xayma tey ci wàllu koppar rek boo xam ne dafa dugg ci askan wi mën naa ne weesu na 80 milliards di dem 80 milliards du lu ndaw. 2015 ak léegi 8 ans 95 milliards 80 euh, milliards du ci lu ndaw la des nag est-ce que am na efficacité loolu noonu ñu jël koppar googu est-ce que dugg na fi mu war a dugg wala duggul fi mu war a dugg loolu ñu koy saytu suñ ko tollee dañu ko saytu parce que dañoo nekk ci réew moo xam ne lépp loo mën di jël fii di ko dépenser di ko utiliser rek na nga xaar bés ci bés yi. que ne dinañ la laaj liñ la joxoon fan nga ko dugal ak nag nga ko dugalee loolu c'est état ak état waaye au-delà de état ak état ay jaamu yàlla lañu te dañoo gëm yàlla tamit te kenn ku ne ci yéen xam na ne ku yàlla sàmmaloo ku ne bésan ci bés yi dina la laaj tamit li ma la sàmmaloon noo ko téye ak na nga ko defee loolu nag nit la ak boroomam loolu c'est personnel moo tax yenn yi duma ci xuus duma ci yegg li may def rek lenn kese la su ngeen ma ko permettre ñu li ñu indi tey mooy mën a partager ak yéen li nga xam ne moom la ñu laaj pour mën a taxawal mutuelle ci ni mu gën a gaawee parce que nag président def nañu lu mu gën a gaaw nañ ko indil mutuelle des acteurs de la lutte kon yéen ci seen bopp yéen la ñuy déglu ñu jox leen ni mu war a demee ngeen wax ñu lii ak lii comprendre ñu ko ñu mën leen tontu ci loolu leneen li nag suñu demee ba ci toll ci mettre en œuvre bi lépp loo xam ne ay gàggante la ay defar la pour ñu bañ a tomber dans les même travers ci Michel yeneen yi dinañ ko fexe ba ñu moytu ko incha allahu taala li wóor ba wóor mooy l'implantation la mise en place est urgente par rapport ak cette mutuelle incha allahu taala lépp lu mu laaj dina ko ci def incha allah beneen bi nag xëy na wax leen que ni am na ku ko fi wax mutuelle li ko yore mooy cotisation des membres. état du def lu dul accompagner leen pour amorcer ko mais li koy yore tigi tigi mooy ñi nga xam ne ñoo ko seq ñun sénégalais nag dañuy faral di naan mën nañoo door waaye mënuñoo jeexal mbir mi à fin dañ koy daw parfois mais loolu tax nag baax na kenn ku ne ci ñun xam ci lan moo ci devoiru Masamba ak lan mooy droit wu Masamba pour ñu mën a avancer ci nu mu gën a gàtt beneen bi am na ñu fi wax ñu feebar. am na ñu fi wax ñu nekk hôpital ak yu mel noonu loolu du objet wu rencontre bi parce que nee naa leen mutuelle biy door tey mënul fa kenn waaye nag li ñu naan dàq sa ganaar waxale soxla tamit bonul soo amee njort ni ki ngay waxal mu ngi lay déglu te di la dégg te déglu naa leen bu baax te dégg naa leen yàlla natt na ma tamit man la président de la république dénk lépp luy solidarité nationale

kon dañu def toujours une priorisation en fonction des ressources disponibles ñaari mbir nak day boole ay waay wax sa waay loo mënut waaye bañal ko loo mën te du mas a am suñ diggante loolu rek laa bëggoon a sànni ci kàddu ma jox le directeur général de la couverture maladie universelle mu mën a tontu ci yenn aspect technique yi mais li am solo mooy defar kese ak njortu defar kese moo ñu fi indi la baax ci yeneen mutuel yi dinañ ko jël dajale ko

dëkku bërëbu xaj fajukaay bi naka la ñuy amee convention pour que foo leen dem ñu mun leen reconnaître ngeen mun a faju mais am na leneen li nga xam ni ñu ngi koy waaj def mooy fexe ba jox carte individuelle adhérent bu nekk maanaam day mel ni sa carte d'identité soo ñëwee dañ koy teg ci benn machine boobu d'abord na indiqué kii ci mutuel lutteurs yi la bokk. Euh,

programme bu rëy la donc ci euh, chef de l'état dégg ngeen jàppale tam li mu wax ci digitalisation au Sénégal ñu ngi ci loolu euh, ndax am na ticket modérateur aussi posé na ko am na ticket modérateur su ci kanamee danañ ñëw ci règlement intérieur bi am na kenn aussi ku waxoon euh, paquet bi kooku moom yaakaar na ne xam na Unitel bu baax a baax paquet de service paquet de service bi loolu aussi danañ ci ñëw parce que assurance aussi amul ben assurance ci adina mu mun couvrir lépp hmm. dana la wax li ak li la mu ngi dépendre ci li nga natt fan la toll simplement donc euh, loolu dana ci ñëwaat ndax ménage yi aussi bok nañ ci euh, wax nañ ci sank amna sax ñi nga xam ni yaakaar naa junj nañ ko euh, naka la ñuy reconnaître critères yi ak yu demee noonu kan moo ci war a bokk defe naa bon ñu doy borom xel comme li ñu koy waxee te suñu nee bi ñuy sax sax am na kuy wax sa njaboot ak euh, vingt dix huit personnes au delà nit ñi ree parce que ñoom ci seen bopp xam nañ ni affaire boobu suñ ko yaatalee noonu day du sotti donc président am na lu mu jox duñ la jox lépp nga fab lépp n'est-ce pas donc danañu définir critères yi nga xam ni ci loolu la ñuy yemagum en attendant mais danañ wax aussi yan pexe dañu war a mun a def pour que ñu mun a yaatal mbir mi au niveau des familles dëggal ko si nit ki su fekkee yow cote yaa am couverture sa soxna su feebaree feebar nga sa yaay su feebaree feebar nga sa papa su feebaree feebar nga sa say doom suñu feebaree feebar léeg les sax doo mun a dem entraînement pour mun a dem bële ji indi loo yóbbu kër ga donc da nga war a couvrir ñëpp en en réalité mais comme ñu ci ndoorte bi rek nañu fexe ba dëgëral ko ñu bañ a def erreur donc loolu lu defe naa lu am solo. <clears throat> am na bon ku wax aussi waxu siège bi loolu defe naa président moom ci war a tontu. Euh, ak ndax ñu ngi ci age am déet bon ñun ñu ngi considéré nii que bi euh, moom Magor Sow technicien bi expliquer na sànq suñu sañoon ku nekk mooy ñëw teew adara bu nekk mais mënuñu indi ñëpp dañuy am ay représentativité très souvent ñeneen ñi dañuy ñëw dabu ji rek parce que yaakaar naa ni suñu fi jógee ku nekk ci yéen dana mun a.

moom la ñuy woyee fii woykati làmb boo fi gis séeréer boo fi gis muy woy làmb moo yore këram muy góor di jigéen di mag di ndaw kon am na loo xam ne comme ñun ñoo ko moom war koo ñaan président ak soxnaam di Marème fay sàll di soxnaam di Marème fay sàll gis nañ social bi nga xam ne moom la Marème fay di def ci àddina bi na ko dimbale indi ñu ko ci ñun ndax suñu mbokk la Marème Faye Aas Faye moo ko jur As yang ak Ndioura Faye ñoo bokk ndey ak baay Ndioura Faye man mii ndey Faatu Adama Jële Ndioura Faye moo yëkkati africain ko ci sama loxo papa sama papa yor bale africain kaulah kon Marème Faye suñu mbokk la. mais léegi wax nga ci wàllu bëre mbërum olof yeeg mbërum séeréer yi. la déclaration bi Gris Bordeaux def. dama ci kontaan parce que Gris Bordeaux wax na dëgg te barki dem ba mu waxee ay apprécié tey bi mu waxee parce que teg mbëri yi teguñ fa te tey bu ñëwee tey ñu jog pour jóg pour rayante rek mbëri séeréer yooyu dem mbëri olof yi combat rek la bëre mbëri séeréer ñooy dem CEDEAO mbëri séeréer ñooy bëri chef de l'état waa mais nit nag wéy ci sa béy béy ci sa wéyu tànk xam nga ñi war a jàppale suñ jàppalewul tey yàq loolu daf ñu yàqal xam nga olof bi di ñëw di jàppale joolaa bi bàyyi si olof bi ñun séeréer yi ñoo war a jàppalante waa ah kay waaye ku ne bu ñëwee ne man maa moom lii ñu moom ñu ngi moom lan moo tax olof yi avancé bug fee bàyyi mbëri séeréer yi parce que mbëri ah kay ah non déedéet non non Yaxaya Jóob nga wax ci mbëri olof yi fan la mujje daa jóge ci lutte avec simple def ci lutte avec frappe waa ci lutte avec frappe boobu fi mu yegg lutte avec simple ba def fa war a yegg mooy école yi ñëpp yegg ni bërewul bàyyi ci mbëri simple yegg ni daa bëre bàyyi mbëri euh, bëre simple dem ci lutte avec frappe waa ca lutte avec ba lañ jàpp waaye ca lutte avec frappe ba fañ cay jàpp ña nga xam ne ñoo ñu ci war a jàppale ñoo ñu ci jàppale kon nañ ñu jàppale ci loolu rek la ñuy ñaan. am na si séeréer yi am na ay champion yu feeñ maanaam yoo bari na waaw mais du ma ci xuus foofu du ma ci xuus mais barki dem bu dégg nga ku ci def débat ci ñoom bëri nga dégg mu ne ñu may xeex. njaago bi xeexuñu joolaa bi ñu bambara bi xeexuñu ñun ñooy xeexante ci suñu biir waaw. xeex boobu lañ bëgg ñoom ñoom ñi nga xam ne ñun ñoo leen moom ñu moom ñu ñun xeex boobu en tant que jógewuñ ci suñ biir déglu nga ordinateur li mu wax barki démb te ordinateur moom moo demoon Niger demoon feneen ak feneen te ba muy dem def leen a wax ne xamoon naa ne danaa perte finale bi lan moo ko waral nañu bàyyi nañ jàppante te yàlla rek tax voilà waaw ah ni mu ko waxee moom ni mu ko waxee loolu la gis man mun naa ko wax keneen mun ko wax keneen mun ko wax léegi xeex boobu nga xam ne moom la kenn xeexul xeel boobu nga xam ne ñoom ñoo ñu war a jàppale ñoom ñoo war a jàppale pour loolu de ñi ñu bokkal. njaago yi ànd naag ñoom njaago yi joolaa yi ànd ak joolaa yi saraxule ànd ak séeréer séeréer yi nañ jàppanteeg séer ñun ñoo fi am li culture boo xam ne kenn amu ko ñoo moom bëre ñooy woy làmb ñoo xam làmb ñoo indi làmb fi ñu ko bi indi jola bi bëgg bëre dóor bërëb bëgg bëre simple saraxule bi bëgg bëre simple bambara bi bëgg woy séeréer jola bi bëgg woy séeréer bambara bi bëgg woy séeréer mais ñooñu ci bëgg suñu noflaay lañ ci ut mais ñun ñu ñu doon mun ñoo ci xeexante ci suñu biir loolu moo nekk moo fi war a en tant que fi duñu dem ndax ku ne da ngay nit rek enal ko te amul njëriñ tey dajalawuñ fi barki dem ba dajalawuñ yàlla moo ñu sàkk kon ku ne nañ ko ak mais bu nga foqar ci wërsëgu nit ndax na ka ma bëgg na am wërsëg ma bàyyi ki ma foqar ci moo jaaduwul moo jaaduwul ci ci séeréer gi rek la am duma ko ragal a wax séeréer laa waaw ko ragal a wax. waxal ak ñoom ci ino foog séeréer fat i ndamir rek to roog a tax i tamir ne ref ka ba i ngeefnoor a qoox in i ngetatanga me andoona yee ref me wiin we ngooyeena caate ke ngooyel wiin we ngooyel yaay i mbog faap fat i yaay i mbog faap kii sama doom la sama rakk la ndax xam nga ne man Agnès su may dem su ma yaay la mook suma papa woon ba fii ñu toll nii kii sama doom la mais fu ma fekk jox ma cër gis nga ñun woykat kese kese nu sonnuñu supporters yi nekk suñ gannaaw ñoo ñu sonal waaye ñun woykat yi kii damaa dem mitin fekk ko fa fu muy woy ma taar Ba man may wotti woy mitinu Cheikh Kanté ak Ali Koto jóge ci mitini Ali Koto ba ak mitinu Cheikh Kanté ba la ma yore ci sama poset macha allah ba ma eggee fekk ko fa def ma ne ma doo dem mukk doo woyaloo Matar ba Matar ba taxaw war a woy mu a bàyyil kii mu woy jox ko micro ba ñu may ma xaalis bu weex tal ma jox ko mun ma du ko jël. su ma la déggee ni ngi jàppalante. fu ñu daje bokku nañ day bokk ba man Mbayang bu dajeeg man maame sama yaa ba xolam sedd yaay la may wax. beneen woykat ak beneen woykat bu ñu dajee nekk ci jàmm mais nañu supporter yi baax. loolu lay lancé supporters yi nañ ñu bax ku bëgg ndey faatu ba kook ndey faatu ku bëgg mbayang ba kook mbayang ku bëgg agnès ba koog agnès bu ñu utal fii pëns yàlla mooy maye pëns ñun wër nañ lu ne en 81 ku ci nekk ci làmb ji ba heure bii am naa lu ne ci làmb bu dee oto jënd naa ko bu dee kër gu rafet liggéey naa ko bu dee sañse maa ko ciy def te li may def la xale yi di roy li may def fii ma toll moom la xale yi di roy barke xalifa Babacar si lu ma def moom la xale yi di roy ba ma commencé woy di taxaw ci diggi géew bi dañ ne woon bokkul ci làmb ma duggee ca buntu ba ñu ne bokkul ci làmb ma taxaw ci biir ndand yi ne bokkul ci làmb moom moo laa koy ñemee wax ndax baabu nga ma ko jur léegi mu ngi duggee ca buntu ba Maodo mu ngay duggee ca buntu ba a sa ngay duggee ca buntu ba keneen ak keneen ngay dugg ca oto ba te wéy te maa ko génnee kon santuma yàlla damay dugg rek mu neex <laughs> eh, yaay ma lola gimi roge kor xawa banan ke xañaan we laya cit no kiin sax roog jegune yaay malola gimi roge kor xawa banan ke xañaan wela njom no kiin saro jegune man yano bay baal bete fapoox semu kor kanku jegeer na yaay fapookeer baak bal maane kontaan naa de ba bég ngeen jërë ngeen jëf man man falay